jàpp nañ ni mu mbiri yi jaaroon yoon ñëpp ko war a topp foofu laa toll ak nguuru Macky te li ko waral mooy tooñ geeg loraange yi nga xam ne ñu ngi koy teg sama ndodd boobu ba léegi te àdduna yëpp teg ci seen bët fi mu toll nii nag dafa am lu xew ñëpp di ko gis te lépp nag mu ngi jublu ci naka la ñuy def ba Ousmane Sonko du nekk candidat 2024 mu am loo xam ne nag ay nit a daje ne nañ ko togg. nit ñooñu nag di ngeen ci am ay surprise dinañ ci ñëw après ndax lu bëree bëri xam nañ ko bu leen jàpp ni président Macky Sall moom dong la amaana sax moo ci gën a néewrul waaye ay nit a daje ne nañu togg loolu ndax kii bis bu demee élection du baax ci ñun di ngeen ci am ay surprise ci nit ñooñu mu am beneen boo xam ne nag ña lu we lu lu bokkul ak loolu ñuy togg ne nañu daje waxtaan ci waxtaan goo xam ne nañu fexe ba ki war a toog na jóge ci ñun ñooñu di waxtaan waaye bu mu doon Ousmane Sonko beneen bi mooy nañuy naka la ñuy def ba keroog bu ñu demee conseil constitutionnel conseil constitutionnel ne Ousmane Sonko mënul nekk candidat ndax dañ ko condamné mooy lii ngeen gis ci ay dossier judiciaire Sénégal ñu gis loo xam ne kenn mësu koo gis ci Sénégal ci diir bu gàttee nii ngeen dossier yu dul jeex nga xam ne Macky sal moo koy doxal directement moom ci boppam ndax ku ne procureur ne ministre la justice ministre de la justice mooy Macky Sall Macky moo naan ministre de la justice defal nii ministre de la justice woo procureur ne ko programmel wala defal li wala defal lële wala poursuivre wala defal mandat de dépôt yooyu yëpp demandeel mandat de dépôt bokk yooyu yëpp mu ngi jóge ci Macky Sall kon ci fànn boobu laa bëgg a waxtaan ak yéen wax leen ni. dafa am loo xam ne ñoom ñu ngi koy wër di ko wax ñu nga ci plateau tele yi di ko wax ñu nga ci réseau sociaux yi di ko wax ñu ngay wër ci ambassadeurs yi di ko wax ña ngay seeti kilifa diine yi di ko wax mooy lan mooy Ousmane Sonko respecté wul état bi respecté wul justice bi buñ ko woowee di wuyu si mooy wax ni loolu méngoowul ak dëgg li ko firndeel mooy musuñu maa woote wuyu ji mu yi damay bugg suñuy wax ñu wax ci loo xam ne lu nit mun a teg loxo la. benn yoon lañ ma mus woo ma ne leen ñëwuma te mooy woote bu njëkk ba le 7 février 2021 yàgg na ñaari at ak lu tegu ci gannaaw te li taxoon man leen ñëwuma mooy yoon dafa man nekk député kenn mu ma woo te teg ma xëy rek ñu ne ma woo nañ la gendarmerie da ngay ñëw may leen déet lii la ma constitution may lii la mooy yoon may mënu leen ko jalgati waaye boo génnee boobu yeneen yëpp bañ ma woy dama wuyu si bu ñu demee ba teggi sama malaanu kiiraay te teguñu ko ci yoon fi ñu ko jaarale jaaru jaaduwut dama nangu le 3 mars 2021 man leen maa ngi leen di wuyu si Sénégal yëpp gis ngeen bi ma jógee di dem wuyu si ñëw ba rond point Mermoz lañ Antoine jom joxe ndigal ñu arrêté sama convoi génne ma de force dugal ma ci seen oto yóbbu ma téye ma section recherche téye ma fa juróom benni fan bu dul woon yow askan wi nga xam ne yaa jóg taxaw ne lii duma ko nangu kon tey jii maa nga euh, euh, prison ñu jël seen temps yépp na ñu ngi defal seen instruction parce que dañoo laloon seen plan ba ba nas ko ba teg ko ma dellu di la gërëm yow askan wi di la gërëm ci taxawaay boobu xam ni loolu dafa gën a yokk ci man dogu gi ma dogu ni man jaamu askan gi la jaamu askan wi laa mooy sama xëy sama gont sama noq yi la ma ci dese bopp mooy nu may def ba askan wi léppam baax ba tappale gi fi nekk jóge fi ba al réew bi ñuy luubal jeex fi ba ni ñuy jëlee suñu mbir tubaab yi di ko yóbbu te te suñu alal waroon des ci réew mi jóge fi man loolu mooy sama combat politique askan wi dem ba comprendre ko jiili ma ji moo tax góor-góor rek la mën a nekk ñu jóge ci loolu woowaat nañ ma fi juge d'instruction bi mu ubbiwaatee dossier bi woo na ma fi lem ma woo yëpp dama wuyu si woo na ma bu njëkk ne ma laaj la ma dem ma laaj ko mu toogaat ba mu nekk ko ne ma kaay damay woote ndax dama leen di defal confrontation mooy ngeen toog ku nekk layow ma dem nangu ko ñu toog tuuti police woo ma wala dikk ne ma am na ko fi déposé plant ñëwul wuyu ma dem wuyu ji ko ñu toogaat ñu convoqué ma le 16 février ma jóge sama kër di dem tribunal ñu song sama convoi dóor samay nit ay lacrymogène ñi ñu jàpp leen dem tëji leen ma dem tribunal ñu ne renvoyé nañu affaire ba le 16 mars may dellu si di ñibbisi si yéen ñëpp yéen a teg seen bët ñu bloqué sama oto ci ci ci Soumbédioune daal di toj sama vitre oto mënoon nañ ma gaañ munoon nañ ma rey gaañ nañ ma sax waaye mënoon nañ ma rey sax toj sama vitre lu kenn mësul gis ci koo xam ne mi ngi ñibbi këram daan may génne ci oto bi par la force ne dañ may dugal ñoom ci seen oto blindé ñoo xam lu ñu defoon ci oto bi ba bëgg ma dugg ci ne ci noonu lañ ma yóbboo ma ñibbi sama kër loolu àdduna bi yëpp gisandoo ko mu yéem ñëpp ëlëb ñëpp bañ ci génnee ñoom dañoo mujj yónnee ay ndaw ci tubaab yi ci ambassade yi def la yoo naan demewul noonu dañ ko doon protéger la yu mel noonu lii dund nañ ko yéen ñëpp ngeen gis ko ñu tegaat ci ñu ne 16 mars 16 mars ma génn sama kër bu 2023 bi di dem ñu attaqué sama convoi dóor ay gaz lacrymogène jàpp ñu bëree bëri bëri ci ñun ba ci ñoom Waly Bodian ak yëpp ci lañ leen jàppoon daa di toj sama vitre oto ma génn ci oto boobu dugg ci beneen oto ñu ñëwaat toj vitre oto boobu mais li gën a garaaw ñu jël. ab mbir sotti ma ko loo xam ne biñ ko yónnee ba bañ ko analise ko bi mu dellusee dañu ne loolu munoon na ma rey ci saasa su ma génnuloon ci oto bi buñ ñu ko sottee ñi fa nekkoon ñëpp ndax nekkuma foon man dong ay seede am na kenn mënatul woon ubbi bëtam xool kenn mënatul woon noyyi métti na méttiwaay boo xam ne ku ko dundul mënu koo xam yii yëpp dund nañ ko fii kon ku leen ne Ousmane Sonko dafa bañ uyu justice da leen wax lu ko neex musuñu maa woote dew ma uyu ji le 30 ñu woowaat ma ma tëdd l'hôpital sama yaram neexul ma yëkkati samay certificat médicaux jox ko samay avocat nga xam ne loolu fu mu mës amee juge da koy jël juge bi neen moo lànk du laal sama certificat médicaux ba pare na samay avocat amu leen droit layal ko daal di def ay condamnation yoo xam ne d'accorduma ci ànduma ci tey waaw kon est-ce que Ousmane Sonko dafa bañ a wuyu justice am déet est-ce que Ousmane Sonko mës nañ ko convoqué te demul te yéen ñëpp gis ngeen ni saa yu ma convoqué sama waa kër du ñu nelawati sama yaay booy du nelawati samay mbokk du ñu nelaw ndakaaru kenn du fa liggéey lépp la tëj ñu daldi di jël lim ñu anoon yépp ci police ak gendarmerie ñëw saam ko ndakaaru rawatina sama quartier dinaa toog ñaari fan ñetti fan maa génn sama kër samay doom mënuñoo jàngi samay mbokk mënuñoo ñëw ci kër gi ci ku ñu convoqué rek ci justice ci loo xam ne àndul ak benn yoon lii nag laa ne mënatul wëy moo tax ma ne la ma waxoon campagne de désobéissance civique civique moom laay continuer ndax boo demee ba dem tribunal sax ñu convoqué la ki la convoqué moom muy état moom ci boppam mooy moo lay tere dem tribunal te liñ ci jublu yépp xam nañ ko lépp xam nañ ko barki dem sama benn avocat dañu waxtaan mu ne man noo mën a def rek pour ñëw ñëwal ma ne ko léegi proposé ma naka laay génnee si te kër góor gi ba egg foofu te lii du am mu ne ma su dee sax da ngay sàcc ñaari fan balaa loolu nga ñëw làqatu ci benn hôtel ville ma ne ko loolu jaratu ko dem tribunal jarul loolu moo tax nag ma ne man sama jëflanteeg tribunal pare na jeex na dama leen ko waxoon ci mitingu Kër masaar bi ne leen dama damaa toll ci sama terminus ndax bi ma commencé jëflanteeg justice ba léegi loraange sur lorange te ay magistrat ñoo ma koy teg man ne loolu mënatuma ko ba tax nag ma ne du ma dem waaye nag loolu tekkiwul ni yeewi nañu magistrat pour ñu def lu leen neex ndax xam nga ñoom dañ naan ñëwul rek kon moo ñëwul ku ñëwul yaa am tort donc nañ ko teg lu ñu neex déedéet magistrat yi dossiers yi ñu yor xam nañ ni dossiers yu dara newu ci ñoo ko gën a xam ku koy xam bis bu ne ñu waxtaanee ko ak ay nit mu yegsi ci man ñaareel bi ab attekat mënu la bañ a jël en considération mënu la bañ a boole ci mbiram li nga xam ne moo war dossier bi yépp bu dee yaa convoqué nit gis ni ñu ngi koy pamti pamte tëj nañ quartier ñaari fan ñetti fan munul génn bu génnee ñu song ko toj otoom dugal ko fu leen neex panti pamti ko yóbbu ko kooku yow soo mënul jël ay matuwaay pour loolu dañ amatoo sañ-sañu imposer kooku ne ko tey di nga ñëw uy moo tax buñ ci profité nag ne dañuy def lu ñu neex déedéet xam nañu seen dossier yi dara newu ci moo tax ma ne juge yi wax naa ni parquet amul solo waaye may wax juge yi ni ko dafa am loo xam ne seen diggante la ak askanu senegal ndax Macky Sall li mu bëgg ci yéen moom day dégager responsabilité am nee na affaire justice la mooy moom lu mu ñemewut dal ci ko Ousmane kaw Ousmane Sonko directement ñëpp gis ko da koy sippil yéen magistrat yi yéen ñii war a yor dossier bi moo tax mu ne c'est une affaire de la justice te yéen ñëpp xam ngeen ni mbirum politique la du mbirum justice moo tax ku nekk na jël responsabilité am Macky Sall fu ñaar fukki fan ak juróom ci gannaaw dalal na benn leader politique boo xam ne ci Yewwi Askan Wi la bokk de vingt deux heures à a une heure et leader politique boobu ba mu ci jógee daf ma woone ma dama lay rendre compte ndax Macky Sall dalal na ma fii ci Mermoz ci kër doomam te ci waxtaan googu wax na ba ne ma dossier Ousmane Sonko bi li ci xaw en première instance loolu dafa joto daf ñëw rëcc parce que magistrat bi ko àtte Pastef la bokk waaye dinañ ko dabu ci appel nii la ma ko waxee billaahi wallaahi su dee li may wax du dëgg muy lu garaaw a garaaw su wëlbati ko ne moom yoonam newul ci dossier yi affaire justice la loolu li muy firnde mooy magistra yi war a yéeg te ñu wone ko ba pare ndax Amady Diouf mi yéeg keroog Amady Diouf mi yéeg keroog yow no mu ne yor dossier boo xam ne yow yaa porté woon plainte ci njëlbeen ba ba pare wëlbatiku dem nekk cour d'appel ne yow yaay zone juge bi koy atte loolu fan la mës a amee ci àdduna loolu xam nañ ni jurisprudence am na ci bu ne loolu mënul am waaye yéen ñii magistrat yi war a yéeg ak ku ti doon yéen ñetti juge yi nga xam ne yéen a war a yéeg xam leen ni àdduna yëpp a nga leen di xool lañ leen sant du àtte de lañ leen sant mooy empêcher candidature Ousmane Sonko loolu nag bu ngeen ko defee di ngeen xam ni ngeen responsabilité boo xam ne du ngeen ko yàkkaleeti mukk ci àdduna ndax nun dafa am loo xam duñ ko nangu de duñ ko mus a nangu làqatu ci gannaaw magistra làqatu ci gannaaw damay def sama liggéey di def loo xam ne lorange kese la ndax projet boo xam ne askan wi yëpp am na ci yaakaar Afrique yëpp am na ci yaakaar yow nga ne yow yaay jóg Macky Sall ne la defal moo xam dalaa jox alal wala dalaa menacé nga ne man may arrêté projet boobu la may woo di ko woo suñu militant yëpp di ko woo suñu sympathisant di ko woo bépp sénégalais boo xam ne am nga yaakaar ci ñuy liggéey mooy képp ku bokk ci complot bi ak koo mun munti doon jàmm jig ñu xañ xañ ko suñuy njaboot projet bi nga xam ne projet salut public la Sénégal yëpp am ci yaakaar nga ñëw ne yow yaa koy yàq kooku ku ko def bu mu amati jàmm fii ci Sénégal nañ ko indi lu ñu bëgg ci protection waaye duñ ko mus a fàtte du tey du ëllëg du dans cinq du dans dix ans parce que réew pour mu dox foo ñu toll ci foo xam ne kenn ku ne la nga bañal sa bopp na nga ko bañal sa moroom la nga bëggal sa bopp na nga ko yéene sa morom loolu lañu ñu diine jàngal réew pour mu dox yàlla moo ñu gën fuuf waaye bu demee ba ne mën mën ngeen fayu ba ne ku jël bakkan mun ngeen jël bakkanam ku tuur bët mun ngeen tuur bëtam ku damm bëñ mun ngeen damm bëñam ku dagg nopp mun ngeen dagg nopp dagg noppam na ngeen fayu lu tollook li ñu leen def yàlla bu demee ba wax loolu dafa xam ni loolu rek moo mën a tax ci biir société kenn ku ne respecté moromam parce que di nga xam ni lii ma koy def ci lu bon mun na mun naa dellu si man bëgguñoo yegg fenn fi ñaanuñu ko yàlla na kenn ku nekk delloo si xelam ci yàlla xam ni lii dafay jeex kenn ku ne boo toogee fi nga war a àtte fàttel lu la Macky Sall wax fàttel lu la Antoine Diome wax fàttel lu la Ismaïla Madior wax ay nit dong lañu fii leeg quelques années kenn dootul tudd seen tur te kuñ fi puus ba nga def loo warul def ma wax leen lenn loo xam ne téere la man maa leen ko wax tey du ma ab xutb du ma ab yonent du ma gisaane waaye am naa yaqin ni Macky Sall juróom ñetti weer moo ko desee ci réew mi yéen ñii muy dugal nag bu leen dugalee ba dem yoonam di ngeen xam ni ci réew mi ngeen nekk amaana sax nit ñi duñu xaar ba mu dem yoonam pour jëfandante ko yéen moo tax na ñëpp delloo seen xel Sénégal jàmm ci xaj projet bi kenn du nangu ñu yàq ko ci caaxaan nun du ñu Khalifa Sall du ñu Karim Meïssa Wade na ngeen delloo seen xel diluñu négocier wuñu defuñu benn compromission na ngeen delloo seen xel te xam ni tuuti war ngeen tuuti ak war ngeen am lu ngeen sedd ba bañ a taal réew mi na ngeen dellu seen xel parce que ni ngeen amee njaboot lañu amee njaboot ni ngeen bëggee lu baax lañu bëggee lu baax te xam ngeen nekku leen ci dëgg billaahi wallaahi nekku leen ci dëgg kon na ñëpp delloo seen xel yii nag Macky Sall di def yëpp pour xoqatal la ma koy wax yéen waa askan wi fi ma toog de maa ngi sigi coor Macky Sall li mu am ci alkaateeg ci drone ak lépp ma nga Dakaaru makisal Sall àttanul askan wi la ca des mooy lan lañu jaral ñun waaye jiiñ naa ni bu askan wi jógee ci benn fan wala ñaar mun nañu pare makisal makisal Macky àttanul askan wi moo tax muy dem ay 4 avril di génne ay drone ak ay ay ay dragon pour essayer xoqatal askan wi loolu yëpp nag ku ku mu leer ni tóoru da koy day bëgg a gagné bataille psychologique bi di wane ni am naa doole mën naa lii di bàkkoog yu demee noonu waaye mag Macky xam na ni yow askan wi àttanoo ko àttanu la moo ko gën a xam ku ko xam ci àdduna moo tax toujours li ma doon wax appel à la résistance nañu gën a takk suñu digg neuf mois moo des pour ñu yegg ci li ñu war a yegg te yàlla xam na ne buñ ci yeggee defar réew mi yàlla xam na ne buñ ci yeggee réew mi soppe ko ba faw ndax loolu ñu liggéey yépp dinañ toog ba tey ñu seetaan mu mu mu naxasaay ci Macky Sall ak ñetti juge ak benn procureur est-ce que dinañ ko seetaan loolu mooy question bi du mbirum Ousmane Sonko weesu na Ousmane Sonko kon nañu gën a takk suñu ndigg te lu lu mu jaral Macky Sall nañu ko jaral ndax ñi muy jàpp nii ñépp pour xoqatal la ak parce que dafa ragal may masawu njabootu ñi mu jàpp d'abord seeni way jur ndax ñoom xam nañ ni tax ñuy xeex ñoom te kenn ku ne ci ñun mi ngi doon xaar loolu may massawu seen waa kër te xam ni wax leen ni duñ leen mës a seetaan lañ ci war a def yëpp ñu ngi koy def fu may daaneele nag mooy wax ak Macky Sall moom ci boppam président Macky Sall àdduna bu mu la jay mukk àdduna dafa am taarix am siira boo demee ci siira boo demee ci histoire àdduna bi ci gën a sori mooy Firawna bayu ci mujjee nii kuñ ci mus a jay ba gëmloo ni ni am nga doole bu kenn amul rek rey nañ la gis nga nguur kenn moomu ko yàlla rekk a ko moom te dafa am bakkan day jeex ñii la wër dar la naan la troisième mandat di la bàkk ak yu demee noonu ñu ci bëri ci ñoom ña nga àndoon ak président Ablaye Wade di xeex contre toi te bis boo fi jógee ngay xam ni ñooy ay jaam jéggal leen ma ci terme bi dañoo bëgg nga delloo sa xel la ñu la yéene ñun mooy nga pare dem toog ni say morom président Issoufou mi ngi Niger kenn sonalu ko président Buhari ak président Obasanjo kenn kenn ñi ngi fii Nigéria Jerry Rawlings nekk na Ghana ba ni mu génnee àdduna keneen ak keneen noonu wax ma sax déewu tubaab yi fii laa wax ci Afrique lañ la yéene mooy nga génn dem toog jàpp sa ñàmbur di dox say soxla wala su dee da ngay dem ci international nga dem waaye yéenewuñu la mujj bi nga xam ne ñooñu moom lañ bëgg si ndax munoo gañee combat bi devant le peuple sénégalais te plus ñu lay dugal plus sa situation de grave parce que bu dee dangaa dox ci ay néew pour génn wala pour essayer forcer toog ci réew mi xamal ni sa mujj dina métti lool. dina jafe loolu te yéenewuñ la ko ki la gëmloo ni ñun da nit ñi dañ laa jàppal dara bëgg laa fexeel wala di fay di waajal ay fayu ñun amuñu jot boobu xam nga ñun dañoo jàng ci yonent bi alayhi salaam jàng ci nit ñu baax ñi li ñu jàng mooy lan bu xeex nooteel jotee kenn gënuñoo dëgër kenn dàquñoo xeex bu bañ jotee kenn dàquñoo xeex bu xeex ngir dëkk jotee kenn dàquñoo xeex waaye bu ñu demee ba jekku la yonent bi defoon keroog bi mu ubbee màkka ñun loolu la ñu gëm parce que ku ñu jox réew danga war a jublu ci liggéey danga war a jublu ci tabax ak defar waaye xëy su bu ngoon jot di wër kan laay tëj kaso bokk na ci li tardel Sénégal ba fi mu toll nii kon na nga delloo ci sa xel xam ni ala kulli xaal nguur gi la yàlla doxoon jeex na seetkat bu la ne nguur gi des na nax na la bu bu la ko wax nax na la ku la ko mun ti wax ndax na la politiciens yi la wër di la gëmloo naan la deuxième quinquennat ñu ngi lay nax kenn ci ñoom gëmul loolu la ca des nag mooy daam fu fu réew di toll dafa am fu mbir di toll kii mu concerné moo war a jël responsabilité am faire preuve de grandeur loolu rek lañu souhaité ci yow souhaité ko ci sa njaboot asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu